dama ko analyser économiquement le Sénégal peut encore s'offrir deux ans ou trois ans de campagne. non non non dinaa la wax ak li ñu dund diggante deux mille ak léegi. depuis cinq ans yéen a ngi ci seen agenda politique est bi finalement est que du da ngeen parewul. waaw loolu dinaa si ñëw. wóolu leen seen bopp ci parrainage yi. merci waay yow nag da nga ay ci provocation. yow la décorer donc benn bi kon xam nga wax naa loolu inclusivité. am na ñoo xam ne dañ ne amul solo man pour man dama gëm ne Ousmane Sonko du Karim Wade du Khalifa Sall Karim Wade ak Khalifa Sall seen dafa différent Karim Wade dafa nekk ci régime politique pendant douze ans ñu daan régime bi gars yi réclamé xaalis bi ñuy tudd ay milliards et milliards man j'étais là avec lui <laughs> j'étais là je pense que je fais partie personnes yoo xam ne bi mu daanoo daan naa ko gis ni waxtaan ak moom ñu ne Karim Wade dafa jël ay milliards réew mi gars yi ne c'est une demande sociale nañu ko jugé nañu ko jugé ñu jugé ko gis nga ni ñu ko jugé yëpp tribunal bi ñu ko yëpp yépp aujourd'hui tout le monde sait fi ñu ko jaarale ci procédure jaarul yoon lu mu def ak lu mu deful man sama nekk ci xaw ma Ousmane nu mu tërati Khalifa Sall Khalifa Sall ànd ak ñoom ñu ñu xuloo politiquement dossier juddu inspection ñu dem ba mu dem caisse d'avance ñu indi dossier caisse d'avance ni nga ko def defoo ko et tout ça lu mu def ak lu mu deful procédure bi jaarul yoon affaire UEMOA on n'a pas respecté procédure bi ni ñu def ba tëj ko alors que c'est pas un détournement de deniers publics ñu tax ko kon violé nañ ko mais ñooñu am na ay faits yoo jàpp yoo xam ne yi ci wàllu politique dafa nekk day faits yoo xam ne yi dafay diviser Ousmane Sonko gérewul bien Ousmane Sonko dañu yeewu ne ko yow troisième nga ci élection yi ñu teg ci ay fan deuxième ba dem nekk ci gaaya mu nekk le leader de l'opposition de fait en 2020 deux mois après nga ne dafa violé crime ñaata année après nga bàyyi ko de violé crime muy wër fu ne mu dugg fa mu def manifestation nga làmb mu dëgër mu dem élection locale dem élection législative di gagné toog ba nga yeewu ne procès na ñëw ñu ne violé wu corruption de la jeunesse condamné ñëwul ñu ne contumace ministre de la justice mooy yeewu ne contumace ba jeex na euh, réglé nañ ko léegi il n'est plus éligible bind lettre ministre de l'intérieur ñu ne duñ ko jox fiche nga ne loolu dañ ci éliminer nit une condamnation par contumace vous êtes retiré de fait du fichier électoral. c'est une conséquence judiciaire. waaw ouais, mais si les faits sont avérés. je sais pas waaw mu ngoog loolu mooy débat bi. est-ce que le ministre de l'intérieur le ministre de la justice moom mooy ministre ministère ministère justice moom moo bind ministère de l'intérieur. xamal ko loolu laa expliqué ministère de la justice. il doit interpréter warul interpréter la déchéance. c'est le juge qui doit décider de la déchéance si nga. con y a contestation on dit arrêté nañ ko mais fi ñu ko jàppee bokkul ak bële. mais code pénal bi à partir du moment. non non vous par contumace. non non non euh, euh, madame vous perdez la, la question, vos droits. non non c'est pas la condamnation par contumace la question c'est l'arrestation c'est la fin de la contumace suñu la jàppee contumace bi jeex na am na ñu ne mën naa sax bañ joxe position am na ñu ne ñu la jàppee ci même dossier bi la. am na ñu ne buñ la jàppee quelque soit fuñ la jàppee. ñi ci ëpp nee nañu. dès que vous êtes mis ma ne ma ne juriste avocat yi ëpp ci réew mi dañoo ne. buñ la jàppee les charges tombent. dëglu rek et c'est un débat man dugguma ci affaire majorité parce que ah. droit du affaire majorité du vote dafa am des règles de droit ki nekk fi ñu ne buñ la jàppee contumace ba jeex na ñii ne buñ la jàppee ci dossier bi la ñi ne buñ la jàppee ci beneen dossier mu am werante ministre de la justice qui fait partie de l'exécutif daal di déclarer ne la condamnation et définitive tiré ci conséquence bind ministre de l'intérieur ñu tiré ci conséquence bañ ko jox fiche ñu dem ci beneen juge mu ne jox leen ko fiche ñu bañ ko jox fiche ñu dem ci Sénat Sénat ne jox leen ko fiche ñu dissoudre Sénat ba loolu ku ci ku ci ku ci wéeru pour éliminer ku am doole boobu yow indi nga source instabilité loolu laa wax caaxaan baaxul. et donc. déglu rek waxuma donc de bu donc gu. non il faut que gaaw il faut que gaaw bi dama lay ah. expliquer réaction nit ñi dama lay expliquer réaction donc inclusivité dafa am ñoo xam ne ñii daf ne amul solo man ma ne inclusivité Ousmane sonku am na solo loolu mooy sama point de vue sama point de vue loolu inclusivité Ousmane Sonko bokkul ak inclusivité. Karim Wade bokkul ak inclusivité Khalifa Sall et je parle en connaissance de cause le combat bi Ousmane Sonko mëne ba amee légitimité bi mu am ak li doole bi mu àndal ak li mu prouvé sur le plan électoral ak fii mu toll ak errement yi am ci dossier yi boo ko ci teree bokk ci élection yi mënuloo prévoir luy am yàlla na doon jàmm loolu laa wax sama point de vue la mun nañ bañ a d'accord am na ñoo xam ne pour ñoom dañ mën a may booy bu ñu fontoo yow tu n'as même pas à faire partie au parce que yow fi nga nekk nii yow amoo problème tu es prêt tu as ton programme.